waaw sant yàlla bu ah, parce que mi ngi bokkoon ci objectif yi nga xam ni amoon ko bi Coupe d'Afrique bi mooy qualifié wu. léegi nag avant l'heure c'est c'est très très bien euh, c'était pas facile parce que ñaari match yu difficile nañu am euh, ñu ma bëggoon féliciter xale yi une fierté bu am pour man pour xale yi. Euh, pour football féminin Sénégal pour le peuple sénégalais parce que nous avons nii xaar ñu ñu peut-être on se disait que dañuy ñëw rek pour compléter pour gagner. si mais aujourd'hui def nañu beneen euh, euh, jéego ci wàllu football féminin pour la première fois de l'histoire une équipe féminine dem quart de finale léegi nag des benn match contre Maroc boo xam pour ñun am importance il faudra que ñu jéem a pour jéem a jël première place mais ma bëggoon féliciter xale vraiment tey ak euh, liggéey bi nga xam def nañ ko metti woon parce que ñaari match yi jege woon trop mais si nous ci fi gëna ressources yi leen permettre ñu am ndam ma di féliciter di leen encourager euh, di féliciter aussi le staff qui est avec nous. waaw euh, déjà il faut que nous xam un résultat pour xam mais ce fait que nous avons gagné day doon euh, finale pour la première place. Euh, c'est important parce que lolu dina la mën permettre nga xam ban adversaire ngay am tay bo génnee premier xëy na troisième ngay euh, ngay tassel peut-être dina doon adversaire bo xam mo gëna abordable mais toutes les façons nous li ma ko waxee woon rek match yi dañ leen di jël ben par ben jouer nañ ñaari yalla may nañu ci ndam ñu ngi dugg ci match boobu aussi et match ba même importance la parce que ya ngi jouer pays organisateur ci dëkkam